Eh, jërëjëf mbokk impératif mbokk yi jëmm ji jëmm ju danger la muy Serigne Massila Diop yéen a ngi fàttaliku jamono yi mu fi wax naan Modou dana am combat bu taxaw te combat boobee bu taxawee dana tas ab gox am ñenn ñu ne. est-ce que nekkul ne ñoom ñii dañuy préparer mbir ba jekk ko soog koo jël gis nañ Modou Lo génn ne moom day pause ba ca kanam am mag mu ma ne pausul ñoom bala ñoo jël mbër dañ lay liggéey ba jàpp la jekku ci gàllaaj soog laa jël doon naa fi dégg nag ñu naan kombaa Modou Lo ak Balla Gaye rëg-rëg moom nee na Modou la bëgg Tapha Tine nee na Modou la bëgg est-ce que nekkul ne gëlëmal day bëgg am ngir liggéey ñooñu ba jàpp leen soog a jël combat bi lii tey danañ ci laaj la maaraabu de Modou Lo mbokk yi sëñ Massi la Diop mi jot na tamit ngeen bàyyiwaat ko xel te xam ne moom mooy làmb gis ngeen bi Modou Lo mu yenu paanu ndox ma di dox ba mu ba jubal na fa Boy Niang sampoon béjjën ba am lu mu sulli yaakaar naa loolu tamit bokk na ci li nagamal tànki Boy Niang yi jëmm ju man làmb la te jëmm ju mystique la nee na ma may làmb mais tey prochain adversaire bu mu Lo tey danañu ko wax ci émission bi mais laata loolu nañ ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi le marabout de Modou Lo ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di ziar di ziar waa àdduna di wax ziar waa ahlu bayti rasul bu ma nee àdduna rek ndar kepp naa fépp di nuyu kër kilifa diine yëpp di leen jox seen wàcc waaye di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa <coughs> barakaatuhu. Euh, sëñ la jóob jot na nag Sénégal bàyyiwaat xel ne li la yàlla may dafa bari rawatina wàllum gis ak wàllum seet pourtant boo xoolee ay weer ci ginnaaw newoon nga am na combat boo xamante ni combat roi des arènes la te bu taxawee dina tas ab gox. yaakaar naa Boy Niang euh, bi combat ak Modou Lo jàllee Pikine rëbëjoowaat na. sëñ Massila lan moo lay wax. xam seet gu man ko. te xam fi may teg sama tànk boole kooku ragal yàlla. bala may wax dara damay njëkk a xalaat sama digganteeg sans borom ndax lu ma gis la wala lu ma gisul la. baneen bi ci topp mooy li ëpp solo ci àdduna. mooy nga peegoo ilmu nujuum. soo ko peegoo dafay teg tele ni loo loo wax nit. du deñ. loo seetal nit suñ borom dala koy jàpp ndalal maa la ko fii. Uh-huh. Mm-hmm. Euh, tey côté boobu tamit bëgg naa ñëw ci parce que gis nañ Modou génn ci benn interview ne instant yi day pose làmb ba ca kanam am ku ma ñoom posuñ buñ bëggee jàpp mbër ba jekku la nii la def dañ lay nelawal bëgg laa jàpp ci làmb si la dafa mel ni yéen da ngeen a làmb xam géewu làmb ba mbër fekk liggéeyu leen ko ba jàpp ko du ngeen jël avance am lii tamit ay coow la. yi dégg daaj muduloo maa ko njëkk a woo téléphone mhm. ne ko sa combat ak Boy Niang day taxaw mhm. sa combat ak Boy Niang bu taxawee nii mu ko daane nii ci télévision laay waxee noonu laa ko waxee noonu la koy daane mhm. te boobu bëreegul ak Balla Gaye mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma baax na combat bi taxaw ñu nekk ci li ñu war a nekk dafay am lu ñuy faciliteel yaakaar naa ni arène nationale laa ko waxe woon ba ma koy wax wulee nga fa Medoune Diouf mi moo ma jël ma ne ko dina am combat bu mag buy taxaw dama ko ni kaay man ko damay def déclaration man ko dina am combat bu mag buy taxaw bu taxawee maa man ko day tas ab diggante moo doonoon combat bii komba mhm. bii nag dañ cee làmb lun luñ ci musta làmb ndax nag détails yi dafa bari mais dama jàpp ni magum jëmm dem jàngi àll ba ba ñëw. toog ci li mu toog. yaakaar naa ni euh, dégg. waaw nañuy bàyyi boroom xam-xam ak sagoom. dëgg la. jànj. du góob. ñun dañoo dem jàngi ca ba jàngi dee jàngi. Mm-hmm. toog tooñuñu kenn. Mm-hmm. duñ wax ci kenn lu ñaaw. Mm-hmm. waaye martaba du jéggale ñun fobewuñu xam-xam mm-hmm. te muudu mi ñuy séqal mm-hmm. wa surafaawul alquran xam na ni ñun li ñu yor lu wér la mais nag yow mudloo koo gis ci wetam rek kooku doonul cuune billaahi wallaahi tallaahi bërki démb daje nañ yoof wax nañ man ak li muy li ñuy wax ba noppi ñuy wax adversaire adversaire nañ toog nañ toog ñun bëreeguñu. gisaguñu komba wëraguñu combat nekkaguñ ci komba mm-hmm. dafa am ci lu ñu jóge uh-huh. dañ koy dindi ba mu set. door a nekk ci leneen. xam nga dafa am lu ma waxeen ci arène national muudu ay borom bopp ñoo ko wër. muudu cuune wëru ko. muudu ànd ak du ànd ak ku xamul dara. loolu moom man maa la ko fii mm-hmm. képp koo gis mu taxaw ci wetu muudu rek na jàpp ni borom baatin la. Mm-hmm. parce que xaalis fu muy dugg. ñiy wax muudu ñaanluwul wala muudu joxul kenn xaalis. bu ñu faatoo de ku ci wax loolu boo dee di nga lay sa borom. ñun ay kilifa lañ dañoo yor kër dañoo yor njaboot dañoo yor dañoo am daraja. suñ borom defal nu ko. dañoo ànd ak moom nag mu ànd ak moom ci ngor nag. muy nit ku neex a àndal nag. maa ngi koy nuyu au lim ma defal bërki dee mu mënalu ma ko sama bopp. mu defal ma ko. kon am na fu suñu diggante toll. du amul lu muy dugg. damay tudd sax benn personne boo nga xamante ni. réeroo wuñ man ak moom muy sëñ siise parce que sañ ñaa koo tudd. xamal tax ma sañ koo tudd. dafa am ci làmbi muudu. ñun ñi ko séq ñépp bala ñu ciy dugg ci dara dañuy toog gise toog waxtaan ba tënk foofu lañ tollu léegi uhuh. mais sañ ñoo duggati ci di làmbatu walla ñuy wax loolu moom maa la ko wax fii dafa ma ma jaaxal euh, Modou Lo barki démb dafa ñëw ci sa ngénte bi ngay tudd bi mu ñëwee ba toog ma jékki-jékki gis la nga am ko woo dee ko ko ne ko borom mbubb mu xonq mële nañ ko génnee baas bi. waaw mais xam nga dégg ñun nag <laughs> dafa am lu suñ borom def ci ñun muy basura bu leer mooy tabi'a nit ki soo ko xamee. yàlla may la kasfu day am loo nga xamante ni boo ko gisee mu bëgg a nekk sorxo sorxo da nga leen naan dégaase leen ko ma wax sécurité bi dégaase leen ko na génn. kon ba ci xew sax daf ci làmb. yow non xam nga roi des arènes day ñëw yor titre bi. waaw am ñu ko bëgg a fa kasal. kon saay yow ngembal saay-saay du tas. waaye la ma waxan arène nationale laay waxaat. affaire bi du xaalis cër ci suñ borom. te damaa waxan ni lu bayti rasul gii la ñuy toog ñun. dagaan yàlla liñ fiy dagaan suñ borom defal nu ko. muy Cambérène gii xabru Seydina Issa Rouhou Laye li may wax akama ko wóolu te gëm ko billaahi wallaahi tallaahi lu ma fi ñaan wala lu ma fi dogul nit suñ borom def ko moo tax ñi ma bëgg di këlikële wala ñiy bëgg di wax nañ def sa très attention néew na lu may ñaan yàlla te suñ borom du ko def man dama lay wax ni la kooy bukki ab tef du ci joowaanu bëggee jàmm barke Seydina Mohamed ma dëkk Kër Baaka dëkk Taïba Ndiaye dëkk ba May ba Taïba Sañ Taïba Xabu Kër maa la min na mbéyeen zone boobu ci wàllum gàncax dama lay wax ni la foofu la baatin wàcc yow tamit euh, alaa ji dégg muudu xam na kan mooy masila eh. masila xam na kan mooy muudu eh. seen côté boobu dama gis ne euh, ñi juddoo kër tay ba kër bàkkan côté boobu dañuy wax naan booy ñaan lu ci wàllum wërsëg. miinam côté yooyu wàllum wërsëg yàlla dafa mun lu leen ci may parce que xale yëpp tukki nañ. am suuf soo nga xam ne boo fa toogee boo nee yàlla allahuma yàlla def ko suufus baal jóob ci la bokk. jinge ci la bokk. suufus kër baaba alima ci la bokk. dañ koo xam. yaroo fa màggee fa nampe fa alxuraan nag di tooge fa baatin. xam nga soo gisee sax may waxee nii. day am loo nga xam ne bëgguma ko mais Sénégal. nañuy nangul nit ndaanaan. man li tax ma teel a dem arène nationale man maa ko xam. man li tax ma doon yanu paare ndox yooyu ak ma xëy di nekk ci li ma ne pour teg sama bakkan man man maa ko xam. tey ma wax la loo nga xam ni musuma koo wax. billahi lazi laa ilaha illallah. li may wax nii bu amul. walla nit waxuma ko. waxtu wi ma ko waxee. bala moo dellu si yàlla bu ma fi fekk. nit a ma woowee kawlax ni ma damaa gént bi ci guddi. bi ne suba la combat bi fajar gi. la ma woo téléphone. ni ma damaa gént. ba piccum jéeli. ñëw di jël couronne roi des bi. nee na man sëriñ ma la ma wéq ko ak sama tànk mu daanu. ma ne ko day am loo nga xamante ni yàlla na yàlla defal ñu yeggale ak suñu sago. ñun dañoo am cër ci suñu borom. man gisoon naa ci mystique Boy Niang. Boy Niang illallah. ci mystique la ci combat laa xamee nekkati yéen a mën. xool dëgg déglul. waaw ñun. dañoo jàng alxuraan. Mhm. xam mu sàlla su wilaaya. xam mu sàlla su kuntiyu. mu sàlla su xamas. xam mu sàlla su kurwaa. léegi lu fu lu neex waaye na fa def. mais arène nationale bii. ku fa mënta doxal siifur. néew ma doo fa am ndam waaye du gaaw wala mbër mi mooy volonté wala ba wutal fa boppam ndam. dafa garaaw gis nga bi may dugg di di di di di di di di di boobu mudloo béréb bi mu taxaw fi la jinne yi féete. mais dama leen di dàq. ndax fi jinne yi taxaw day diis. dégg damaa bëgg nga déglu mu baax. kii wax ak yow nii. am na loo nga xam ne fooyewu ko. maa la ko fii. <laughs> monsieur euh, tey dafa am lu ma jaaxal tey boo nee côté Kër Bakkan zone Kajoor bi seen côté boobu xale yëpp tukki nañ sekkari tukki tey bëgg naa nga ñëw ci tukki sëñ bi tamit euh, am na lu leen ci yàlla may. waaye yow dégg daaj lii laa fi xuraysin mm-hmm. wa rafaxnaahu makkaanan aaliyan nga boole kook suufas ayda boor. même nit ku xamul jëkkër. boo ko ko sangee bu ànd ak yàlla day da koy am bu dee nit ku bëgg tukki. bu deewul day tukki bu ànd ak dogalu yàlla. loolu maa la ko wax fii. nañu bàyyi nag bu ñu gisee dara génn wax ko am ñoo nga xam ni dañ koy def di ko laam-laame man sama wax jalum muus la. boo jëqee gis. dama laa waxan ni la. Uhuh. yàlla dañuy may ndam. Uhuh. le six ñu dem ngénte la sept la ñuy wax. temps bi moo xatoon. dëgg la sëñ Massir la Diop mbokk yi fàttali ne numéro yu affiché mooy numéro sëriñ bi képp ku ko ci woo dina ko jot. ñu ne sëñ Massir la bu la ngembee moo xam ci wàllum alal moo xam commerçant nga bu la ngembee moo xam ci wàllum footballeur bu la ngembee ci lu mu mënti doon kenn mënta yàq say euh, mbir. ñu gis équipe nationale bu Sénégal des fois buy dem coupe d' Afrique wala coupe du monde wala coupe yu ti doon dañuy gis yenn joueurs yi blessé sëñ si est ce que jotul tamit ñu dénk la équipe bi. waaw ci laa bokk. waaye nag am na loo nga xam ne mënuluma ko sama bopp. ñu ma ci joxee kàddoot jox ma ci ab cër. jox ma ci la ca sama wàccuwaay. la ma ca man ma ñu def ko. mbaa yëg nga ni li may wax nii télévision laay waxewaat encore. coupe d' Afrique ba ñuy dem ku nekk ministre. Matar Ba. benn garde kooram mi ngi nekk Fatick maa ko woo téléphone ni ko ñetti xar yu jigéen la ñuy génn sarax ci buñ koy sarax xam nga ci lu koy def maa man ko ci ab deema xam nga lu di deema mooy oto oto yooyu pël fuute yi yàpp ay ndugg ma ne ko buñ ko génnee bu ànd ak yàlla bu di ñëw ku bii ñëw mu ne maa ma ne ko waaw am na ñoo nga xam ne bëgguma dévoiler seen tur ci internet mais nag ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk na ñëpp boole bokk ñaan yàlla indil lu ndam li te ñu bàyyi bu fekkee dafa am ñuy fakastal nañ ko bàyyi bu Sénégal amee ndam génnul benn sénégalais waaw. mais monsieur la tey ni la sénégalais yi xamee ci xam-xam tey boo doon dékk boroom xam-xam yi ëpp Sénégal xam-xam suñu góor yi suñu mag ñi gën a jàng boo duggoon ci àll kajoor bii mag moo fi dénk micro ne ko tey boo mën mënoon tuddal ñett ñi ëpp baatin ci ñi ngay gis. dana la ma si la Diop parce que bëri na fu may dem di waxtaan ak ñoom mais ku ma ci waxtaanal ci baatin dana ma sëñ Massila Diop yor na baatin bu wér mais dama gis doo waxtaan ci nopp lu tax loolu te problème yi bëri na góor ñi takk jabar baleen fa wër di doxaan wala jigéen ñi am jëkkër bàyyi fa seen jëkkër di wër di njaaloo couple dañ ko war a ñàkk. tey dama lay jox benn exemplaire. xam nga Médoune ma la ñëw na open press Modou Lo. fas yu mel nan la gis ma yor ko. fas yu ak lan. ak ak sama tànk bii sama tànk bii sama tànk bii nga xam ne moo handicapé lu ma ci fas ci noob mu am loolu maa la ko wax fii non yow fas yooyu dama ko maîtriser ci noob maam takk nit ba jàpp ko. yàlla na ko bu ma ko defee ba def ci ndox bu sedd guy fas ko ba ràccatal ko bàyyi. jat ak nit ku xongu. Ah. ba jat ko makaliyun ifla sun kala sun kalaw jeexale ko ahamun saxaxun xalaxun yesun kooku xaati mu kalaw la. dara du ko dindi. non du dara. am nañ cib cër. xam nga nag noob dafa jafe. ndax léeg-léeg nga noom nit ki ba jàgg rawaanam fitti dem taxaw fële. bu fekkee amu doonoo borom xam-xam da ñaan ba sonn li ngay ñaan mi ngi baax de waaye li ngay ñaan day daw nu mu taxaw fële di la xaar. aka mat a leeral. Mhm. Euh, sëriñ ma Sylla Diop mbokki numéro yi mooy numéro am képp ku ko ci woo dina ko jot lan moo mën a toj liggéey nit ñi dox xaaj bépp liggéey nañu leen. dafa am nag euh, juróom-ñaari xas yi. Euh, kii euh, garab gu mag gi te bari Cees xay juróom-ñaari xay yu bokkul boo ko booleeg xula onsu bi rabbil falaq xula onsu bi naasi wa in yakaadu lazina kafaru la yasluxuunaka bi absaarihim lammaa sami'uu ilaa zikrin wa yaquuluuna innahu la majnuun wa maa huwa illaa lil aalamiin boo ko booleeg moom ak li ilaafi Quraysin nga tënk ko. wa tiini ba naasi. am na benn xaatim bu ndaw bu muy àndal. boo ko sangoo. lu ne ci sa yaram dañ lu na defan balub tengsi lay doon day dellu ci ki ko defan. kon liggéey nit cat boo ko jëfandikoo diirub juróom benn weer suñ borom muccal la ci. looy wax ñu naan Modou Lo ayaya Modou loo est-ce que amat na ko muy ragal ci àdduna. Modou àgg na au sommet. 2023 ñaata combat la bëri. deux combats. yi gën a danse. yàlla may ko ci ndam. boobu bàyyil mu jàll. ba ñu daje ba gisee ba dugg ba génn. gis naa si monsieur le sànq. dama rek. Mhm. ku ci dem ci sëriñ nag mu lay wax boo génnee sarax bii di nga bëreeg muudu nan ci def ndànk muudu bëreegul te su waree bëree bu ànd ak dogalu yàlla lu yomb lay doon insha allahu rabbi eh, gis naa sànq góor gu fi ñëw nga taalal ko ab jaaro jox ko ma ne la jaaro bi nga reetaan si ma si la jaaro ñu koy mbubboo jamono ji bëri na de te pourtant gis naa kilifa yoo xamante ni tey kenn ëpp leen alal ci dëkk bi du ñu sangu du ñu takk ndomba jaaro su ndaw lañuy ñuy takk secret jaaro. gis nga euh, xaatimu Souleymane. neuf buntu la. dafa bu ci nekk dafa am bis bu muy duggee. boo ko xamee. nga aada turu nit ki xam ko. boo ko boo ko boolee yaa xam ne xulubul xalaayix dangay ngay nag peegu xam-xam. ndax ñaar téeméeri xam-xam la ñaar téeméeri buntu la ak lu lu teg. waaw boo ko jëlee chiffre ya ca nekk yëpp par bunt nga nga adat ko boole kook sa tur boole kook xaatimu Souleymane. kenn mënta wax ba doo am alal. bu sa loxo bënnee dootul bënn bu dee alal nga dajale ko dalay jafe. Mhm. da koy saafara. bu dee ku ñuy xeex ci wàllu wàllu askan. boo ko sa boo ko takkee yàlla seede na ni ak yonent bi kenn du la ñeec sa waskan mbaa yënga ni boo ko takkee bal du la rey àll sama digganteeg yàlla gis nga sumu day ànd ak sumun bukkumun umyun fahumun laa yarji'uun sumun bukkumun umyun fahumun laa yaqiluun hmm. tey ma wax la xam-xam de. maa la ko wax fii tey jaara ba boo ko takkan bari na ci njombe yoo nga xam ne boo ko defee nga boole koo <laughs> boo ko takkee nii rek ngeen def da ngeen di jaawooloo histoire lu mu rëy dañ la koy nettali coow lu mu rëy rëy dañ la koy nettali doo ko fekkee gis nga xam-xam ku koy weddi da sumeekuwul dem war janloo ci arène nationale bële maa la ko wax fii. ñu bàyyi la ko askan wi lay suivre ci MPROD TV. waa li ñuy tàggatoo mooy di sant yàlla. di julli ci yonent bi. gone guñ ci jox nga toog ci micro. di wax ci borom baatin loo xamul ndax làmb. su làmb ja jeexee. di nga toog ci sam néeg rëcc ko. ndax nag bàyyi naa la man na man ngaa jéggale ci ay wax. waaye li nga téye ci sa xol fondamental. ndax fii ci dëkk bi nga nekk. ne am fi ay nit am fi ay soppe am fi ay am di jàmme tur woo soxla wala turu yaayu nit koo soxla di nga ko xam amul lu ma déggul arène nationale bi ma duggee war a dindi li may def mais man li ma ñoroon xam naa ko moo tax man leen guddi guddi bu ànd ak dogal yàlla koron bi parcelle wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, sëriñ Massila Diop moom Cheikh Mourtada la ñu fekk si woon tey doon seq ak moom ay leeral ginnaaw ñoom bi ñu amee ndam ca combat bi ñu doon euh, bëree année bi nag am nañ ci ñaari combat yoo xamante ni mën naa ne combat du siècle la parce que ñi ñu doon bëreel bokk nañ ci mbër yi gën a euh, danger moom ak mbërëm di Modou Xarañ Lo am ndam ca kaw. waaw ngénte la tamit sëñ bi waa ñi ñëwoon sa ngénte. waaw ñi ci ñëwoon. maa ngi koy commencé ci Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy teew na Abdoulaye Diop Xaas teew na Serigne Mor teew na Masata Ndiaye teew na Abdoulahat Ndiaye teew na Buur Géwël teew na Fadam teew na Buur Géwël bi ci des teew na maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ñoom Ibulaay ñoom Lamine Seck ñoom Jaméricain sama mbokki sëriñ sépp maa ngi leen di gërëm di gërëm sëñ Mourou mbay Kéemaan di gërëm ndonga kend di nuyu ñoom Pape seen di wax ni am naa cant guma leen jagleel yàlla na saa borom yàlla bég ci tuyaaba ji ngeen wut si woon ku fa ñëw aaja boo am yàlla na ko saa yàlla faj kontaan nañ trop. Amin gis ngeen euh, leeral yooyu sëñ Massila Diop doon leeral ci ña woon ca xew ma ay ci mbokk yi ni ma daa doon affiché képp ku ci woote rek di nga jot sëriñ bi yéen ñi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah